mbokk internet yi bienvenue encore seen chaîne Ndarañi Info gannaaw ba leen euh, sant di leen jox canta ngërëm bi ngeen yellool dina euh, wax tey dañ dikkaat seen émission bi nga xamante ni dañuy dox di saytu tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy euh, Pikine boo passé gare routière bi fi terminus bus si nekk ñu fas yéene waxtaanoo ñu waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci boobu wàll tey nag ñu naa dara ci biir émission maanaam dox saytu ki nga xamante ni moom mooy Bamba Niang su ne Bamba Niang muy secrétaire général Amical de chauffeurs Tata de la commune de Saint-Louis Je suis venu à la qui de ki nga Oumou Alassane Dia Oumou Alassane Dia moom tamit moo nekk commissaire au compte euh, ci euh, amicale bi nga xamante ni moom mooy euh, des chauffeurs Tata de la commune de Saint-Louis daleen seen chaîne Ndarañu info du lu dul jox kàddu ñi nga xamante ni tey ji ñoom ñoo ci wàll boobu di leen fàttali ni jotaay tey bi nga xamante ni mooy seen jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañuy dundee est-ce que dañu war a régulariser est-ce que dañu war a trouver solution lan exactement moom lañuy ci seen problème loolu moo ñu fi tax a teew mbokku internet yi Ndarañu info monsieur Niang maa ngi lay monsieur Ndiamale ziar ñu ngi lay delloo ziar bu baax di nuyu waa ndar ràññ info di nuyu internet yi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel ci chaîne bi donc di nuyu waa ndar di nuyu kilifa yi aada yi kilifa diine yi di nuyu ñëpp képp koo xamante ne yaa ngi dégg suñu cadre rek ñu ngi lay jox suñu nuyoo di la jox nuyoo mbooloo bi nga xamante ne itam ñoo nekk suñu ginnaaw waaw di rafetlu bu baax seen teewaay fii nag di kontaan seen ñëw parce que lii moom soxla woon nañ ko trop macha soxla woon na trop mom moy euh, Bamba nya di secrétaire général amical des chauffeurs Tata de la commune de Saint-Louis euh, comme bi ma ko waxee woon sama njëlbeenu kàddu dañuy jox cadre ki nga xamante mom moy Eumeu Amadou Alassane Dia mo nek commissaire au compte Amadou Alassane maa ngi lay ziar. maa lay ziar di len di nuyu di len masso coono di wax bismillah ci terminus bi euh, di rafetlu nak émission bi comme tay fi ngeen fi ngeen teer si yàgg bëgg li may tey la ko yàlla dogal kon bam ñoo sooy bienvenu wax deug yalla jafé jafé bari na fi lol nak ñew ngeen fi fi nga soxla nak di nuyu wa internet bi yeb nak wa taxaw ak seen liggéey bu rafet ma sha allah ñong koy rafet lu baax a baax waaw. moom mooy Amary Alassane Dia nek seen commissaire au compte bokku na ci point wala poñ ñu la jukkite ci waxtaan bi moy li lal li nga xamanteni mom moy bobu jafé jafé est-ce que bu nga më expliquer lan ngeen jakonté ci seen liggéey bi. wa jërëjëf loolu boo ñu ko laajee dinañ ci sawara a trop. waaw jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel ci biir liggéey bi bari na bari na trop waaw li ci jiitu nag bokk na ci mooy condition de travail eh, maanaam anam bi ñuy liggéeyee dafa nekk anam boo xamante ne daal dafa manqué lu bëree bari bari bari bari bari parce que boo xoolee ñun dinañ xëy depuis 6 heures du matin la ñuy xëy di liggéey di liggéey di liggéey ba 21 heures wala 21 heures 30. maanaam 18 heures 18 heures de temps dinañ ko liggéey ci journée bi. te xam nga loolu bu fekkee ne dañuy xool si règlement yi nga xamante ne moom la code du travail wax rek déjà loolu jaaduwul. code du travail la waaw code du travail li mu maye mooy nit ki 8 de temps la war a liggéey donc comme 8 de temps la war a liggéey ñun ñu liggéey daanaka double double double euh, heure bi nga xamante ne moom la ñu waroon liggéey kon loolu loolu déjà ñëpp dinañu mën a xam ne lii problème la voilà mais wax dëgg yàlla conditions yi bari na bokk na ci euh, contrat de travail boo xamante ne. am nañ ko bu bu boo xam ne en bon et euh, yooyu bokk na suñu ay conditions yoo xam ne bëgg nañ ñu ñu ñu kiwal ñu si régularisation personnelle bi daal la ñuy wax parce que euh, amuñu contrat de travail amuñu suñu salaire jaarul par banque suñu ay waaw si par main lañ ñuy fayee waaw parfois ñu dab la ci biir oto bi fay la yenn saa yi ñun la boo wàccee jaaral station ba wala jaaral suñu patron yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jël ñom ñoo ñu fay loxo ak loxo parfois ñu ñu ñu teel la fay yeen saa ñu fay la heure yo xamantene itam ma sha allah moy lolu day dem ba wa yeen saa ñu dem ba ay le 10 amna ño xamantene dañ koy sax romb parfois wa ah, amna ño xamantene nak ñu dinañ teel fay yeen saa yi am na xam amna ci ño xam ni wax deug yalla ñom dañ teel a fay mais ñu ci bari dañuy tok ñi ba le 10 ñi ba le 8 na amuñu date bu fixe daal bu doon jaar bank wala yo xamantene bu fekkoon réglementé am na réglementaire na vraiment du am retard boobu waaw donc loolu problème la aussi. réglementé na liggéey bi du am jafe-jafe yooyu ñu dundu ñoom waaye damay euh, faral di dégg gars yi naan chauffeur bus yi wala ñi nga xam ne ñoo nekk si bus yi eh, ñu bëri nañ jàpp ne yéen a moom bus yi liggéey seen bopp la ngeen mën waaw loolu de mën naa ci sawar sont ku mel na man mi surtout man nga xam ne pile bi lay ma 30 maa maa ngi dawal kaar te comme bus yi ñoo remplacé woon kaar yi te man dama ne woon ba ñëpp ràññi ma ci kaar man sama carte bi mu parce que dama nak lu lu mat 15 ans avant muy dugg bis ñu ci bari yaakaar nañ oto maak moom jusqu'à présent ba ci sama sama taximan ak sama apprendre di ñaan oto maak moom te yàlla xam ne moom moom waaw ba léegi ci dañ ma embauché waaw comme ni ko bam dañ dañu ma embauché waaw ni ko bam waxee nag ni ñu xon ni ñu xon contrat ci départ da nga dañuy jaar banque ah régulariser ñu nak yépp amul waaw man nak sama waaw

yooyu mën naa ni xëy na sax régulateur sax li ñu ci am ñun amuñu ko si ñun parce que ñoom daañu liggéey huit heures temps seen xaalis mi nga yaar banque mais ñun loolu bi amul bopp seen xaalis bopp wala seen patron moo koy fajal wala lu muy demee noonu loolu lépp dara ma moom commencé léegi ba léegi problème moom du loolu sax pare sama xaalis mais nag am na ci yoo xam ne ñoo ko ñoo ko moom te amuñ te amuñu ko bu ñu sañoon bu ñu sañoon suñu liggéey gën a amélioré wu sa xaalis di jaar banque boo bëggee leb ñu lebal la boo bëggee tabax tabax boo bëggee leen def la leen boo bëggee leb ñu lebal la kon su ma déggee bu baax amu leen droit def prêt à la banque waaw ah, parce que banque dañoo waxoon suñu salaire de base cent mille la te ñun suñu salaire fii li moo tax ñun xaalis bi du mënu jaar banque mais moo doon cent mille dana jaar banque <laughs> li ngay wax de rewaade ngeen banque da lay salaire 100 000 te yéen instant bii nii seen salaire agul 100 000. 80 000 en tant que chauffeur nit ñi di leen xoolee ay bët yoo xam 200 300 000 ça dépend mais su ngeen defee 80 000 de chauffeur di recevoir ko ñu <laughs> fay loolu xaw na rewaade loolu est ce que tamit est ce que ñëpp la wala def pour ñeen ñi kese la. waaw maanaam li li waa li ñu li ñu mujjoon waxtaan ne 80 000 la ñu fay le maximum. Hmm. am sax yenn ñoo ñoo xam mais am na ñoo xam sax 000 de di fay am ñoo xam ñoo 000 leen di waaw ñoom soixante mille leen fay. donc fa faut faire une transition donc moom dégg wax na lii euh, ci wàllum salaire bi ak yooyu et tout donc wax nga aussi léegi euh, say say kaddu yaa ngi problème travail bi heure bi aussi donc je pense que ni mu nek heure heure 18 heures de temps déjà mo doon 8 heures de temps si bien 80 000 wala lu ko lu ko gëna ki kii néew nak la naka la exactement tay ji te et puis wax nga amoo amoon CDI manam contrat à durée indéterminée ni CDD contrat à durée déterminée loolu nak la demee ak te am ngeen ay ay ay kii fi nekk ah, ay IPRES yeneen ak yeneen réew yooyu yëpp soo koy expliquer. waaw loolu suñ koy expliquer dañuy commencer d'abord rek par euh, di naxarlu d'abord euh, manque de présence responsable yi muy lu mu mel ni comme CETUD parce que lii projet la boo xamante ni état moo ko moo ko initié moo ko moo ko organisé jox ko CETUD CETUD ñëw CETUD ñoom ñooy war ñoom ñoo war a gérer projet bi ñoom ñoom c'est les gérants du projet mooy CETUD conseil exécutif euh, du transport urbain de Dakar mais comme dafa dem ba jàll ci yeneen région yi aussi ñu ñu ñëw ñoom ñoo coiffé liggéey bi yëpp si Sénégal yëpp transport urbain interurbain sax léegi ñoom dañuy dem ci yeneen région yi mooy Sénégal dem dikk yi donc ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ñoom ñoo gérer projet bi ñoom bi ñuy dem ñoo ñëwoon defal ñu formation avant ñuy commencé comme ni ko moo collègue waxee léegi Amady Dia ñoom ñoo ñu defaloon formation bi wax ñu da ngeen nekkoon ci secteur informel dañ leen bëgg jëlee si secteur informel bi yóbbu leen secteur secteur donc secteur formel bi nu muy demee mooy nit ki day xëy de 6 heures du matin liggéey ba 14 heures wala 14 heures 30 mu wàcc ba subaa mu xëyaat mu liggéey 8 heures de temps wàcc boo xëyee am nga sa prime de pañe temps la sa salaire itam temps la mais loolu yëpp ñu waxoon gisuñu si dara bi ñu ñëwee bi in ba indi oto yi programme bi lépp lu ñu ci waxoon ci formation bi dañ ko soppi indi leneen loo xamante ne daf ñu jaaxal trop boobu ba léegi nag def nañ lu nekk pour pour jooy ko fi nga xamante ne war nañ ko fa jooy pour ñu taxaw si mais ba léegi amul ñu si trouver benn solution. waaw waaw voilà. voilà amoon am nañu benn syndicaliste boo xam moom lañ doon liggéeyanteel ñëw na fi topp nañ leen bind nañ ay lettres yóbbu nañu inspection du travail bon mais ba léegi nii daal wax dëgg yàlla amaguñ satisfaction bi ñu bëggoon. duñu dañu continuer nag parce que ba ba léegi nii bàyyiwuñu ndax ñu ngi préparé pour delluwaat inspection waxtaanaat ak ñoom xool ba xam liggéey bi fan lañ ci toll dinañ dem ci kilifa yi nga xam tam ñoo yor ñoo yor dëkk bi te taxawal fi yoon lépp loo xamante ni daal yoon may nañu ko te ñu mën ko dox dinañ ko fexe jaar ko ci yoon ba ba ba aboutir suñu suñu ay ex suñu ay loolu euh, waaw objectif waa donc loolu daal moom instant bii nii si loolu la ñu nekk di ci liggéey ñu ngi ciy ñu ngi ciy liggéey nag di yaakaar am ci satisfaction bu bu kii favorable daal. léegi man dama dégg sa biir wax. donc yow ba euh, Père Bamba Niang mhm. yaa ngi ni yaa ngi yaa ngi ni léegi total dafa am benn syndicat bi ngeen bokkoon. Mhm. syndicat bi ngeen bokk mais est-ce que jàpp leen da ngeen war a bokk ci syndicat wala yéen da ngeen war a wut seen syndicat bopp ba mucc ngeen nga jàpp moo gën a gaaw comme ngeen manko yéen chauffeur yi ndaar yeeg yëpp ngeen manko association benn syndicat wax ne ngeen fay réclamer seen ay seen ay doléances seen ay problème moo ngeen bokk seen kii ku mën répondre si yéen ñi rek moom wala kii rek waaw waaw maa ngi rafetlu sa sa question bi am na solo lool lu jafe nga wax pour manko chauffeur loolu mooy suñu loolu mooy suñu feebar ñun feebar bi benn la mais am na ñoo xam amuñu fit taxaw wax am na ñoo amuñu fit taxaw seen kanam opérateur wala ci kanam ci kanamu média bi pour wax mais defe naa loo xam ni sa droit la wala loo xam si àq sa yëf la ak moom war am loo ci ragal ku la ci bëgg na la ci bëgg xam ne yow mii kat am nga ful am nga fayda ku la ci bañ mu balak yàlla mais loolu moom bu amoon mais lii do tu xëy mais ñàkk ànd boobu mooy problème bi li fi ne ñaata tataar fi nekk lu bëgg ma 130 ñu ngi def fii Saint-Louis li fi li fi ne motul 5 personnes te am nañu Bamba contact ñoo xam ne ay responsable leen Bamba woo la leen dañu gis a ñu wax buñu fi noonu ñoom dund wax waaw bu amaana ñooñu bu fi wax ñooñu ñooñu gën mën a wax mais ñoom newuñu fi moo tax ma jël ma jël kàddu nii mais bu ñu àndoon lii motuñu xëy mais ñàkk ànd go mooy suñu problème je veux dire ah man sama solution loola gis naa ni bi ngeen defee dara de façon très dispersée ñi jaar ne ñi jaar ne comme ni ko waxee am ñu war a ñëw ci bile émission mais ñëwaguñu xëy na peut-être leneen la mais est-ce que ma manque bi daal je me moo leen moo war a gën a mën a mën a may doole sama gis-gis bu gàtt boobu li nga wax noonu loolu moo war a am sax parce que ay nit bu ñu àndee di liggéey aussi li leen mën a may ñu am yenn yenn atu yi mooy ñu ñu booloo nekk benn mais loolu moom comme ni ko moo frère waxee léegi Amady Dia. lu ñu gën a sonal mooy manque manque manque de kii waaw di de de de cohésion boobu ñu war a def mooy boole suñu bopp ñun ñëpp ñu nekk benn loolu moom dafa manqué si ñun bu baax a baax a baax donc boobu faiblesse la mais syndicat comme ni nga waxee léegi question bi nga wax léegi ci euh, question syndicat yi effectivement wut nañu syndicat boo xam ne nekkul dakaar nekkul Saint-Louis quoi dakaar la la loosi donc déplacement am ñëw Saint-Louis ak retour ak yooyu dafa nekkoon dafa causé woon problème parce que à chaque fois suy déplacé wu di ñëw ci ay benn yenn dossier day day day day jël day laaj yenn dépense yi day laaj yenn moyen yi pour mu déplacé wu ñëw moo tax moo tax moo tax nag li nga wax nii dafa am solo ñun dinañu jéem a def démarche yi xool ce que ñun à partir de Saint-Louis dinañu mën a def suñu organiser suñu benn syndicat boo xam ne moom mooy euh, taxaw taxaw liggéeykat yi nekk ci biir aftu yëpp parce que fi mu nekk nii yaakaar naa loolu rek moo war a nekk solution bu ñu mën a jàppale aussi ci côté boobu parce que bu fekkee ne syndicat bi nga am nekkul ci ci ci ci base bi itam da da leen da ay jafe-jafe da ngay am ay jafe-jafe pour mën a vraiment xeex li nga bëgg xeex yëpp moo tax li nga wax ni am na solo trop ñu ngi ciy xalaat di ci waxtaan xam naa ni du ñàkk xëy na bu fekkee ne trouvé nañu benn solution bu bu bu kii rek bu jaar yoon rek dinañ fexe taxawal loolu waaw incha allah. donc sama dernière question ñu ngi ci euh, njeextalu émission bi ndax wax ngeen l'essentiel dama gis ni IPRES c'est une institution de prévoyance retraite donc du Sénégal mais un contrat déterminé ou indéterminé est-ce que retraité comme comme papa mag rek. bu <laughs> sa ci <laughs> <laughs> Ndélewaat looy wax ci loolu. ma ci bëggoon li ma ci bëggoon dolli rek mooy euh, comme ni ko ni ko Amady waxee xam nga loolu dañ ko boole woon ci formation bi sax dañu waxoon ne seen mag yi dañu gis ne ñiy liggéey ci oto yëpp. dañu dem ba retraité dem toog ci garage yi di ràngu ay ay cent franc ak ay deux cent ñu leen koy may donc loolu dañ ko fi bëgg jëlee ñu ne ñu woon dañ leen di fexee dugal leen ci institut sociale yi lu mel ni comme caisse sécurité sociale ak euh, IPRES leen bu ngeen retraité mën a am seen pension. waaw caisse waaw waaw waaw caisse sécurité sociale. ñaar waaw ñaar la caisse sécurité sociale la ak IPRES. ke mhm. sécurité sociale moom moo lay féeti ci benn côté bi mooy par exemple boo waaw boo feebaree foofu ngay fajoo sa jabar bu feebaree wala sa ay soo nekkee si yoon kii ñoom ñoo lay taxaw ci côté boobu. donc euh, fële wu tam itam ñoom ñoo lay jël en charge si côté retraite nga xam ne du instant bi ngay liggéey dina am as tuut li ñuy tex ci li ngay am di ko fa denc sa patron itam am loo xamante ne ci restam dinañ ko fay tex tuut digal ki mais gars yi suñu gars yi suñu opérateurs yi nga xam ñooy suñu ay kilifa suñu responsable dem nañ ci ñoom ay yoon réclamer leen loolu pour ñu jëm ci taxaw mais boo leen ko waxee à chaque fois ñoom li ñu lay tontu mooy ku nekk da nga am sa patron donc ñun mënuñ jël engagement pour gérer loolu ku nekk daal boo bëggee contrat demal ci sa patron waa alors que lii projet la bu fekkoon ne dafa nekk loo xam ne dafa dañ ko dañ ko euh, maanaam nit dafa am ay otoom rek taxawal ko nii kon kenn du soxla ñuy dem ci ay ay ay euh, maanaam ay kilifa parce que ñoom dañu am benn ki benn kuréel bu ñu tuddee APTU ñu am président si dëkk bi am ay ay ay adjoint am ay ñeneen ñoo xam ne lañ toptal ci biir liggéey bi donc ñoom ñëpp c'est des responsables yi nga xam ñoo gérer projet bi fii a Saint-Louis bu démé ci ñom so leen réclamé lolu élé ñu jéem wo seen ay nit jëm leen xamal ni kat li kat moy yoon nañ dem ci yoon régulariser leen parce que lolu lañ yoon sant ñom dañ lay delluwaat bal bi ni la waaw ku nekk ku bëgg patron ku bëgg dal contrat da ngay dem ci sa patron mu defal la contrat. mais est ce que mën japp jàpp am ngeen vie euh, vie de famille nak ngeen di pallier ci entre seen cœur ak tout temps yéen circulation et tout c'est c'est c' dur hein très dur même parce que. yow imaginer kuy xey 6 h du matin di wacc 21 h 30 22 h mais kooku lo am vie de famille. xëy ba 6 heures du matin ngay xëy booy génn sa kër day fekk ay du ñu jóg sa jabar day <laughs> xalaatuñu ko kuy xëy kuy si mbedd mi ngay añee terminus yi ngay añee ah hmm. terminus da ngay toog parfois commencé añ sax ñu ñëw ni la sa tur jot na jógal nga dem <laughs> bon bu dul régulateur bu compréhensif dafa naan <laughs> day dagg sa añ nga dem donc condition yi doy waar daal la ñuy liggéey quoi waaw moom

ajjuma même julli juma dooloo taxaw boo taxawee ñoo ngi am am na say nawlu si yoo xam ñoo ngi jàkkam di nga mm-hmm. boo ngeen taxawee yéen en tant que chauffeur yi dafa am yi daw ci kaw ajuma ji daw na en tant que musulman te waxuma am na am na suñu benn boo xam ne suñu benn boo xam ne dafa tuub ci ñun la bokkoon chrétien la mais dafa tuub dugg ci diine ji bu mu tuubee dugg ci diine ji gars yi dafa ak bu rafet wut ay yëre yu rafet jox ko comme ni lislaam waxee ci diine lislaam rek diine jàmm la diine mbokkoo ñu ñu teeru ko ci diine ji tatagal ko mais image kooku nga xam diinam dë dëgëragul bu ñëwee gis ñuy def noonu est ce que est ce que moom moom moom dana am temps pour julleeti te finalement mu jël man daan ñoo ñaan boo ko bëgg waxtu la mais du ma waxtu la mais léegi jullitul juma à de ñoo xam ne ay doomu julli lañu da ngay taxaw kii yóbbu sa tur boo boo paan doo doo taxaw bu añ jotee bu ñun boo dem añ ñu la ko bàyyi ma dem mais en tout cas daal kenn ko wax donc mbokk internet yéen a ngi seen émission euh, dox saytu askan wi donc gis ngeen li mu yëg ci léegi ci ci kàddoom nee na am na koo xamante ni nekkul woon ci euh, jullit du woon jullit mais dafa ñëw nekk jullit bañ jël ay kàddu ñoom jox ko mu gis musulman yi ko doxale wala bokk parce que kenn mën woowee ay jullit heure jumaa ñu njëkkante pour am wutul am euh, donc bañ xaar seen ay morom léegi loolu moo ko yóbbee ba tax danaa dem jumaa moom ki chrétien boobu dugg si islam mel nag bëgg na ko bëgg da nga ko bëgg a daaxaat du exemple bu baax donc loolu bëgg wax euh, léegi nag seen seen seen seen seen dernier kàddu laataa mooy mooy mooy mooy tëj ki bi émission bi waaw suñu dernier kàddu daal mooy xanaa di woo kilifa yi rek di woo kilifa yi nga xamante ne ñoo yor dëkk bi kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci secteur bi di woo kilifa yi nga xamante ne itam ñoom la ñuy liggéeyal di leen dellu seen ay raison di leen xamal ne yoon ad euh, bon euh, yoon ñëpp la fi nekkal nit ki du questionné rek da nga am doole wala danga am pouvoir ba tax nit ki yow lu la neex rek ngay ngay ngay comporté wala lu la neex ngay def comme Sénégal nag dëkk yoon la am nañu ay kilifa lépp dinañ ko delloo ci seen loxo topp ci daal wax dox liñ ci war a def yëpp def ko ba lépp loo xamante ni mën nañ ko jëlee nañ ko si ñoo xam ne lii lañ ci jëlee donc loolu daal moom lay tëjee di wax rek di woowaat sama mbokku liggéeykat yi leen wax ne nit ki ay droit am moom moo ko moom te nit mënuloo nekk ci àdduna di liggéey ba pare di nga ne da ngay liggéey noonu rek di di di di tërëtërë di dem doole dafa am fu muy yam am na yenn certain âge yoo xam ne boo fa eggee sa doole dafay dafay dafa lay dafa lay tàggu balaa ngay egg foofu nag war nañ jóg taxaw jéem a xool nan la ñu mën a def ba situation yi mën a changer parce que lii moom mënul continuer waaw mënul continuer di liggéey ay heures yoo xamante ne doo comprendre fi mu nekk nii boo am bu lu mënti xew ci àdduna si say mbokk ak lu mu mënti doon yow bokkoo ci bokkoo ci mënoo dem dëj mënoo dem ngénde mënoo dem benn xew boo xamante ne rek sa ay mbokk dañ ko xewle nga bëgg nga waroon ci teew ndax liggéey bi mhm. te loolu xam nga ne loolu jaaduwul waaw war nañ gën a góorgóorluwaat daal ci liggéey bi incha allah je pense que internet yi dégg na leen euh, grand amadi <laughs> nga def lay mbala quoi lay <laughs> tàggatoo waaw li may tàggatoo xaar di leen sant di leen gërëm rek <laughs> te seen action bi ngeen def rafet na trop waaw ndar ràññi ak internet yi parce que jamono ji moom li fa fépp ay métti mhm. waaye nag ñoo ngi nuyu suñu patron yi muy opérateur yi donte sax ñoom ñoom ñoom la ñu bëgg clamé ni ci wàllu yoon waaw ñu ngi leen sant mm-hmm. di nuyu waa régulateurs yeeg contrôleurs yeeg chauffeurs yi baaw ñu kenn mm-hmm. moom nii rek mm-hmm. ñun sax xëy booy wax ñu boo gis ñuy wax li pof euh, ñun sax am na am na ñu tane ñun am na ñu tane ñun franchement parle ñun franchement am na ñu tane parce que ku mel na man mi sama opérateur am am na pas yi mu def yokkal na ma sama sama prime yokkal na ma sama salaire comme ko nee na traite bi jeex na waaye nag ñoo ngi xaar lu dàq loolu waaw di leen nuyu di leen gërëm rek

dina am fu neex dina am fu metti donc chauffeur ndari la won fi ak sen émission dox saytu ak sen chaîne Dadaane Info di ci ki nga xamanteni moom moo dox émission muy euh, sama promotion mbay Boy donc di remercier de Patch ak sama ñaar invité yi ñu def dig dajé ba may yoon fi sen chaîne Dadaane Info